ah moom kay gannaaw loolu la kat yow itam ko sëñ ka def ni sama tubooy xarit su ma seenee sama noon sol ko ma tey sama xarit sëñ Babacar wax de sama tubooy xarit su ma gisee sama noon sol ko ma tey sama xarit ndax la sama noon wax ba jot tubooy ji xaw ma ko moo tax la sama noon euh, wax ba jot ci tubooy xaw ma ko gannaaw kii sama xarit la ma gis sama tubooy kee kee sol ko te ko sol sama noon la ah damay tey sama xarit nag duma ko bàyyi waaye naa tey nag ci moom voilà loolu rek àtt bi ah nay imaamu imaam yi ah imaam mooy lan imaam julli boo boo jiitee julli léegi boo nekkee ci kanam nit ñi rek nga nekk imaam ñe sa gannaaw ci lañ nekk maamum buñ sëlmalee kenn ku ne dem sa bopp waaw buñ si ne dem sa bopp imaam day dem fële maamum dem fële waaye buñ dajee ñu imaam ak maamum lay doon imaam a ngi nii maamu ma ngi nii acca bisimilah ne kenn liqaam ñu liqaam imaam jiite ñu sëlmal maamam jaar na le ilimaan jaar na kenn dootul tudd la lu tax lu tax duñ lay wax maamam yow lu tax tuddewuñ la maam <laughs> rek am tax maam sam yi duñ ko wax maamam te danay roy ci ilimaan maamum mooy koy roy ñu tuddee ilimaan imaam tuddee maamu maamu tuddee ñu eh, waay e nangam nangam duñ la ko boo paree ci julli ga maamu mu kenn waaw bu julli jotee imaam ni ki ki imaam mooy ko jiitee mooy ko ne ci kanam ki ne ci kanamu nit ñi ak ne ci gannaaw nit ñi ki ci kanamu nit ñi moo tudd imaam ki ci gannaaw moo tudd maamum mm. jeex na ki ci kanam mooy imaam ki ci gannaaw mooy moom suñ suñ jullee nag ba pare jeex na ko ne dem sa yoon waaw mais Sénégal dina oustaz man oustaz ni ma ko bañee billaahi dara ku ma ko wax parce que oustaz dafa dafay dayo bu bu rëy maam maam alaaji Maalik lu ko maam alaaji Mansour wax yaa oustaasu sindiidu yow yaay oustaas bi di sang bi waaw seetal loolu dafa diis dafa diis Oustaz Ousseynou Diène dégg nga ko moom Oustaz la waaye ñun golo gu jóg rek ñu naan la Oustaz Oustaz nga naa naam ak laa way way yooyu yooyu ah, waaw ay Oustaz Beuz ak Oustaz Banana Oustaz nangam nangam yooyu yooyu ah, amul njëriñ li am solo nekkal nit ku nite rek mu jeex am nga xam-xam la nga xam-xamle ko hmm. soo paree ci xam-xam ba pare na waaw booy jàngale nag léegi yow diggante maître la ak élève yi suñ jàng ma pare metre bi dem na élève yi dem na hmm. waaw jàng loolu rek mooy oustaz bi koy oustaz dafa diis ay qualité la yoo xam ni am ko yombul am ko yombul waaw yaa ustaazu sindiidu dégg nga de hmm. ustaazu ji sindi topp ci loolu mooy mooy ngor loolu mooy jom ah. moo ko jóg ustaaz ak imaam yi day bool ci imaam yi ku jog da nga tudd Oustaz tudd imam tudd nangam tudd nangam yooyu yëpp nag dañ lay réyloo rek bu ko defee nga réy nag mu mu indi la problème ni yemal ci sa nité yemal sa nité bu julli jotee nga ñëw jiite bu jeexee nga dem sa yoon waaw waaye daal sama tuba yi xarit su ma séenee sama noon sol ko ma tey sama xarit ndax xaw ma lu sama noon wax ba jël ko ba sol ko kon Barthélemy ak imam yooyu loolu dox seen diggante rek mi daal moom hmm. gis na tuba yi xaritam hmm. ab noonam di ko sol hmm. ah mu téye ci xaritam rek ah déedéet man de waxuma ni naaw ñoo waxuma loolu <laughs> ñaaw na daal kii Barthélemy daal Mansour def ni jubuwul ab Ousmane Sonko ba tikkale dégg na ni dafa ànd ak moom wala day wax ay wax ci moom mi dàq ko may la sëñ Babacar nee na sama tubooy xarit su ma ko gisee sama taati noon ma tey ci sama xarit ndax xaw ma lu tax sama noon sol ko loolu <laughs> xanaa rek ñu sant yàlla bu baax a baax ñii wut réew mi nañu def demee sago nañu teey nañu demee xel bu ëllëgee ko yàlla jox ñu ànd ak moom ñu doon wut ñëpp ànd ak moom liggéey waaw boo léegi ku yàlla ñëpp ànd moom liggéey waaw yàlla na ko yàlla def waaye ñu bàyyi coow lii réew mi benn lañ réew mi yëpp benn mbokk lañ xaw ma benn réew di waaye Sénégal ñëpp benn mbokk lañ géwél ak géer ak tëgg ak ñëpp benn mbokk lañ benn mbokk lañ waaw wa jaal ëhlaana firaaw na moo def loolu moom moo jël ay mbooloom rek séddale leen noonu ñii mu naan leen yéen amu leen dara ay géwél ngeen yéen ay tëgg ngéen ñii ay nangam nangam waaye ñëpp ay mbokk lañu wa jaal ala chiana naa def loolu waaw moo séddale mbokk xaajale mbooloo yi yóbbu fi yóbbu fi amul solo waaw kenn ku ne na góorgóorlu rek koo àndal góorgóorlu ci ànd bi waaye nag àndal ak moom ci sago ànd ak moom ci xel ànd ak moom ci tey waaw bul ànd ak moom mukk ci xëtëb xëtëb ak xeex ak indi bu nañ bàyyi xeex xeex baaxul nañ bàyyi xeex bi bàyyi xuloo yi bàyyi ŋaayoo bi lépp nañ ko bàyyi rek ti ne ci njub rek góor rek moo moo ñuy dimbale ndax ñëpp ay mbokk lañ koo gaañ danga ko seeti koo gaañ seeti ko kon euh, xaju fi xaju fi de xaju fi de xaju fi waaw